ñu ngi départ tey ngeen ñëwoon fii promoteur yi ngeen ñëw fii jaakaar euh, daje ak euh, waa CNG pour indi woon seen projet de budget. Hmm. affaire nan la demee après ngeen déposé seen projet de budget ba pare. waaw donc en fait ñu ngi leen di ñëpp donc euh, c'est vrai que dañ ñëwoon pour waxtaan donc waxtaan xool li nga xam ne état moom la proposé donc état li mu proposé mooy. comme moom mooy gérer sport wu nation bi donc huis clos mooy am si sport que ça soit ak discipline bu mënti nekk maintenant huis clos bi làmb ak réalité yeneen sport yi bokkuñu. donc moo tax ñu demandé à ce que ñu def des budgets par rapport ak programme yi ñu am ñu indi ko après ñoom ñu xool daf ko synthétiser ko daf ko benn document final pour mën ko jox état maintenant à partir si base boobu la état di xool nan lay jàppale promoteurs yi. mais ñu lu ñu retenir en tant que promoteur parce que euh, làmb dafa nekk loo xam. coût bi dafa dafa dafa am doole. donc même bu dul huis clos bi li état di di dimbale mais nee nekk dimbal bu consistant parce que bu consistant rek dinañ ko yëg parce que c'est vrai que modèle économique yi am na ay PPV am na yëpp am na mais en réalité est-ce que PPV bi dina la mën a tey jii permettre yow nga mën ci génn a cent pour cent bu amul public. te lamb sans public aussi nekk na loo xam ne pour une première foo ñu xoolaat ko. ok combat bu mel ni Boy Niang Tapha Tine est-ce que Pape lis pare na pour def ko PPV ba pare en plus def ko huis clos. waaw ñun déjà dañu am contrat ak waa RTS. Hmm. donc loolu day reyaat aussi état dugal ci loxoom. parce que hmm. RTS entreprise nationale. état moo ko moom. donc boo moom contrat pour bañ a euh, contrat boobu obligé négocier waat loolu pour dugg si PPV bi donc y a des yoo xam ne nii promoteur bu nekk am sa personnel si yow. mais incha allah bu fekkee ni état comme lu mu wax décision huis clos la on est obligé lu mu wax ñu def ko maintenant tout dépend si moom ndimbal bi nan lay toll à hauteur de combien lay nekk pour que ñu mën ko ñu mën a dugg si sinon ñu dàq ko ba beneen at. d'accord merci. ok merci